rabbil alamin sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat Serigne Touba mi sunu yaakaar tey ak ëllëg di yeesalaat bu baax sunu njëbbal ci Serigne bi Cheikh Moussa mi sunu yaakaar tey ak di am mbégte nag bu baax ci jotaay bi nga xam ne jotaay dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bis boo xam ne waa axlu xasida fii tey ci résidence Xaadim Rasul di siyaar Cheikh Ahmadou Mountakha may siyaare sama jawriñ ji sama wet sama mattango sama kodd moom jaare ma koy bu baax moom it di ko delloo njukkal ci xasida yi siyaare ñëpp góor ñeeg jigéen ñi mbégte bu baax nag ci ànd kook ñoom ndax ñoom maanaam kuréel gi nga xam moo nekk Touba tey nag kuréel gi yëpp fi daje fédération bi waaye kuréel gi nekk Touba te ñoom suñu Cheikh Touré nekk yeeg eh, ñu mel ni ñoom ñoom dañoo lëkkaloo ak man ci liggéey bi may liggéey lépp lu ñuy def rek dañuy ñëw ànd kook man ñoom it lépp lu ñuy def damay ñëw ànd kook ñoom wa waa axlu xasida ak waa axlu café dañoo jaxasoo doon benn xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa lépp benn la ndax jàng xas jàng xasida ni ma koy waxee toujours rek samay wax ak naan café dafa bokk ci mandarga mu yoonu murit mm-hmm. suñ dee drusa xasida Serigne Touba yi waa Ahlou kafe ñoo di leen berndeel ci café ak Serigne Touba gi noonu rek lañ ko ànd ak ñoom noonu lañ ko fas yéene ànd ak ñoom ba faaw di ñaan liggéey bi ñu tasa ceeg ndimbalu yàlla ak tawfeex Serigne Touba ñaan Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te wér. jërëjëf yi kon xam naa yéen ñi bàyyi xel Touba Vision noonu rek leen fas yéene ànd ngeen ci lépp loo xam si jot na fee xam jot na fee am fii ci euh, résidence Cheikhoul Khadim Zaaru Ahlu Xasaayid kon dinañ jox di daj ci kanam tuuti ñu dikk yeneen élément